jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey ñëwaat nañ fii ci seen entretien seen entretien nag buñ ko waxee euh, seen entretien dañuy faral di génn dém di fekk ji ñi nga xam moo di ci askan wi tey ñëwaat nañ ci kenn koo xam dañ ñëw daanañ fi ñëw miin nañ ko muy sëñ Ismaïla Mbacke sëtu imaam sëñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay ziar ci li nga xam te moom moo di jamono ji. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp. di nuyu mbokki taalib yëpp di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxal Basiru sunu boroom yàggal ko lool mu ànd ak taalibi Sëñ Tuubaa yëpp di baalu àq ñëpp nag di wax ne tey kàddu gi kàddu gu gu doy waar la kàddu gu ñu goo xam ne neexut a génne te it mëne su ko ñàkk bañ a génne symbole bi ñu leen ci wan rek mooy dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ne dëkkub yaakaar la dëkkub yërmande la euh, boo leen gisee lii ma sol war ngeen a xam ne ab symbole laa ci jublu ab symbole mooy bu jamono doon baax lii ma lii lii nga xam ne mooy nekk ci biiru biiru biir biir biir yére bi moom moo waroon a nekk ci kaw bu demee ba lii nekk ci kaw nag am na lu muy am na lu muy wax loolu mooy lan ñàkkum ndox mi ci dëkk bi ndax lii bu tilimee ma ne su ko génne ci biti muy nekk ci kaw kon nag symbole boobu lañ ci jublu mooy dëkkub sëriñ tuubaa bi dëkkub yaakaar la dëkkub yërmande la dëkk bu sell la bañ nañ ko ba ñuy wax Touba dëkk bu sell ba la ñuy wax dëkk bu sell ba nag ñu koy wax te nit ña fa nekk amuñum ndox loolu dooy na waar yërëmtulu na ruslu na bu doon ci ay ay ay ay gox la am yoo xam ne danga naan quartier sàngam dañoo am problème mu tiwo moo tax foofu lañu war a dépanner waaye Touba gépp la dem nañ ba ci bërëb bii nga xam ne néegub yàlla la sëñ Touba li fi nekkoon lépp lim gënoon fonk mooy néegub yàlla bi day manqué ndox dem nañ ba li wër jumaa ji kër Cheikh Mamadou Mourtala googu rek mënees na ko mooy li wër jumaa ji foofu sax fan yi yëpp amutoon ndox bu dee ci ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci liñ tuddee boo rombee corniche bi ñun daanaka avant màggalu Tuubaa lañ amoon problème mu ndox ba màggal gi weesu ay weer amuñ problème mu ndox nga xam ne day mel ne Tuubaa léegi programme bi daa yegg ci maanaam ñàkk ndox moom lañ gën a moom lañ moom moom ngay gën a jëmmal sax ci am ndox nga ne boo amee ndox sax day mel ne dañ laa jox adduna la la ci biir loolu nag dafa am yu ko am na fuñ ko leeraloon waaye danañ ko gën a leeralaat sëriñ Moustapha Jàng lañ jox liggéey teg ko ci loxoom ak ko sëriñ naam sëriñ Abdul waxoon naa ko waaye li may leeralaat mooy ñoom ci seen bopp nanu sagalaat seen bopp tuuti waaye sagal sëñ tubaa waaye sagal Cheikh Mouhamadoul taxa ndax sëñ Touba dama gis murit yu bari dañ naan ñaanal ma ay milliards ma mën a liggéey suñ Touba ku naan ñaanal ma ñaanal ma ñaanal ma yi bari waa ki nga xam ne da nga am sansu nag ñu dénk la dara ci Touba war nga cee mën a liggéey sëñ Touba liggéey bi nag mooy nga sagalee ko sëñ taxa ndax dem nañ ba yëf yi kat bu ñu tudd jaaratuñ seeni tur yéen waaye nit ñi fi ñu toll fi mu ne nii fàtt nañ leen waaye baat bi ngeen di dégg ci internet bi wala ci euh, ci internet bi mooy sëñ Muntaxa dimbale nañu ndox lañu kon jéggi nañ leen fa léegi dem nañ ki fi nga xam ne ni waruñu woon a déggu dëkk Tuubaa di jàmbat di ko jaarale ci ku mel noonu nga xam ne mooy suñu symbole mooy suñu kilifa mooy suñu yaakaar kon war ngeen a sagale sëñ Muntaxa ba nga xam ne ni lii nuru ay lu kenn xamut te kenn mënul koo layal ndax na ma ko waxee woon koo xam ne nii bëri góob ndox bi nga daa jaay bu njëkk 4000 nga ko daa jaayee dem ba ci yàgg nga koy jaayee 5000 francs yokk ko c'est par semaine ngay am 6 millions wala 7 millions loolu bu dee at mu ne ñaata la war a doon kon pompe yi fan la wala fan fan comme pompe yi naan daa pan lu koy pan dañoo dañoo wutut lu baax wala lan. ndax loolu firndeel na ko seen ndaje mi ñu doon def démb rek nga xam ne dix heures lañ tàmbale bay ne daanaka man nga ne loo ci ëpp waxtaanu gone lay doon ndax waxuñ fa wax ju ju concret am na ko fa laaj ab xalaat kuñ naan Moxtada lam leen laaj ñoom dañ ca war a tontu te xam ne dëkk bi dëkk bu mag la doonatu dëkk bu ndaw ci bépp fàll fan euh, bépp côté boo jëm rek la ngay daw ngir mën a génn Tuubaa rek war ngaa xam ne ndakaar gi ñu tuddee capitalu Sénégal euh, day ab capital rek waaye bu tubaa doxee tuuti du toll Touba fii comme ku ñu naan deuxième capital di senegal askan wu toll noonu toll fa 37 forages nekk fi ñuy am problème mu ndox euh, euh, sagaluñ suñ bopp waaye sagaluñ suñ tubaa waaye sagaluñ suñ Muntaxa te nag yenn yi nag ay lobby da koy waral. li dal Macky Sall dañoo dal lenn nag ndax eh, am na ñoo xam ne nii xam naa leen damay bañ di tudd tur mu noonu ak par parlo moo tax duma ko tudd waaye am na ñu ma fa xam ñoo xam ne ñenn ñu ñuy defar lañ waaye nag bu fekkee ci biir maa googu luñ tuddee station dafa ba nga xam ne am na ñoo xam ne sax dañuy ñoom gaare seen eh, dañuy gaare seen oto jàppee ko station sel wala dara ngir fa la fa la ñuy duwee seen seeni seen ndox wala ñu fay jëlee xaalis bu ñuy mën a du duyam ndox kooku du mën a wax wax ju yegg ja yeggale suñu kilifa yooyu nag bu amee te bëri ñu ko cay def ndax euh, tàmbali maa wax la buñ demoon ba ci biir dees dees na mën a leeral nag waaye waxtu wi du waxtu leeral junj la def rek ngir xam ne xam nañ lépp seen ndaje yooyoog yooyu ñu ci doon defak ak yëpp xam nañ ko détail yooyu waxtu wi waxtu soxlawuñ wuñ coow liñ soxla mooy ñu defaral ñu lii Touba kenn du ko régler su soixante-douze heures Touba ëpp na loolu liñ ñu war a def mooy tiiw yi ñu tëj ñu bàyyi ko ndox mi ñuy jaay bu mun ta ñàkk te nit ñi ndox mu neex lañ bëgg ñu wàññi ko ba ba mu toll ci poosu nit ñi liñ toroxal nit ñi doy na waruñ cee mën a teg leneen dem bay jaay nit ñi ay bari ko bu fekkee ñoom dañoo bëgg Touba ñu di jaay ndox dañ ñu ko wax kër gu ne weer wu dee sax ngay fayal sa bopp moo tax ne lii ñu ñu def lii toroxal nit la surtout nit ku munta wax nit koo xam ne ni saa su yëngoo nga ne pas-pasam daa rocce ko daa ñàkk pëstéef daa nangam ak nangam fi ne bu nit ñi jugoon yore seeni séew ak aw ci mbedd yi ñu ne dañoo amut dañoo amutu respect waaye sëñ bi ab jullit ndox moo war a jiitu ci moom ndax ndox lañ koy waajale buy ñëw buy dellu ndox lañ koy waajalee kooku bu ko ñàkkee fu mu jëm kon nañ xoolaat yëfi yi buñ demee ba ñi nga xam ne ne dañoo wujji seen borom mu ngi a waajal ngir am ñàkkum ndox sakantuma ak liir bi gëna ci jamono bu ñu wutee ndox muñ ko war a waajalee sax dañ koy lijjanti ji li ñu war a wax bëri na nañu xoolaat li ñuy def ci turu nag ASD mouvement ànd saxal dëgg ñu mën ko wax ci baatu wolof kuréel boo xam ne day taxaw mënees na ko wax alxaq sabit ci lañuy waxe ànd koog sëriñ Ahmadou Sougou Tasrif muy mouvement boo xam ne fii la nekk ci dëkk bi lépp loo xam ne nii gis nañ ko te teguwut ci yoon te ñu mën caa wax ba mu saafara ñett yi yonent yi waxoon lañ ko lañ koy defee wax ci walla xeex ci wala wax sunu kàddu ba ñëpp dégg ñu ba ñu xam ne bu ëllëgee ci biir dañuy xam ne ñun teel nañoo dawal suñu responsabilité pourtant am na sunuy baay yu fi ne wala sunuy maam lii naqari leneen xëy na dañoo munta wax waaye ñëpp la naqari ndax man ndox moom bu manqué euh, melut nepp état nga xam ne daa am ñii dañuy am ñii ñàkk fépp lay manqué sagal leen ñooñu sagal leen taalibe sëñ Tuubaa yi nekk ci dëkk bi waaye nag ngeen sagal seen bopp ndax li gàcc la nit nag bu fekkee jox nañ la te mënoo da ngay démissionné tubaab yi faw liñ naan tubaab amul solo am na solo wala na ko man di roy sax ci yenn yi tubaab bu yoreb liggéey xam ne mënul day démissionné waaye ñun ay privilège ay privilège lañuy gën fi ne ni waaye dit kuy wut privilège ba dëkkub sëñ Tuubaa bi sax nga ciy wutaate ay privilège fàtte nga sëñ Tuubaa te loolu du ngor mooy nit ñi fii dafa bari sañcaan waa ki amut lu mu lekk bu ñàkkeem ndox nu muy def dem ba yow ndox loo lekk amoo ko da koy wëri da ngay wër yore ay peel nekk ci dëkk bi tumuranke di sonn boo demee ba amoom ndox moo moo moo mooy naan ñaari coono ñëwal na la dañ leen di sóoraale neex gi du liy wër corniche bi rek wala environnement dëkk bi wala ci ay personnes ay quelque nit ni ay privilège lañ ñooñu xamuñ àdduna àdduna kenn du ko toppee noonu privilège muy sa jëmmi bopp daal nay naat fi nga nekk environnement bi nga nekk nay naat yow da nga am ay certain bërigo yu mag yoo xam ne nii yow ndox day nekk sa kër du manqué yow daal li fi dara manqué wul rek amoo problème ku ko yoreb jàpp ne noonu la ab am réew war a doxee wala ab dëkk bu mag yow warelu su laa dëkk sa kër sax wareelu ko dénk kon nañu seetaat suñu bopp ci sagal sëñ tubaa mii saggi sagub sëñ tubaa nag tàmbalee na ci nit ñi bëggum ndox te mënoo leen ko jox ndax man kaana na billahi wal yawmil aaxiri fal yukrim dayfo waa gan yi buñ ñëwoon lool sax am na amati màgg du ñu amoom ndox muñ sango gàccaal sañ Touba la ay problème euh, moteur la ñu am lañ wax ay pompe waaw pompe yu duñ dem wut pompe yu baax nañ bàyyi deuxième mai yi ñuy wut ak pompe yi ñuy wut ñaari fan ñett mu yàqu dégg naa ko ci kenn ku ko àddu foofu nañ def tour de table waxtaan te bu ñuy waxtaan kenn bañ a xool intérêt xool ne fi mu ne lii ñuy pousser nit ñi danañ ci excéder ndax li nga xam ne la ñuy waxtaanee ci biir kër yi ci biir néeg yi dem ba ci yàgg ñu génne ku ci ëtt bi ci kanam tuuti ci mbedd mi la jëm mooy li ñu dal ci wàllum politique mi heureusement nag it sax nag loolu dañ koy waxaale ci politique bi Macky Sall weer na fi boppam loolu alhamdulilahi rabbil alamin dama daa waa yàgg wax ne sama xeex man tàmbaliment ba boo koy door di ko dégg da ngay jàpp ne damaa daa da damaa am lu may contesté waaye benn personne benn personne bu jàpp ne sa jëm ma tax ma may may wax yoo xamoo fi may waxe bu doon sa xottu jëmm rek man awma lu may wax ak yow waaye li nga yor te ñëpp bokk ko nag ah dees na ci wax nag looloo tax Macky Sall dégg ngeen ci biir waxam ci euh, bi mu dajeeg journaliste yi daal di wax ne kilifa yi diine yi wax nañu ak moom kon daa nañ wax ak moom loolu it sant nañ ci yàlla ndax dama daa wax ci samay biir wax ne dañoo bëgg a jaxase taalibe ak sëriñ si ngir ay pas-pas lañ bëgg di dindi te loolu leer na léegi kon na ñëpp jël seen responsabilité xam na état bi nu muy doxe moo ko bëgg a doxe waaye du du du du kilifay diine yi foofu nag la tax mu dem ba darñeel bi moo wax ko yàllaa ko bëgg a weer jublu ci ay waxam sax yàllaa ko bëgg a weer leer na ko ne waxoon naa ne sëñ Muntaxa ku set wecc la ci fii mu toggee dul lislaam amu ci yàq amu ci defar man nag damaa taxaw ne man sama kuréel bii ma taxawoon mooy ASD luy sagal sëñ Muntaxa bu ma sañoon mooy génn ci man billaahi wër na ma ci sëñ Tuubaa adduna àdduna ak la ci biir sagal sëñ Muntaxa ak delloo ko njukkal ndax ku ko delloo njukkal sagaloo ko danga ko ameel bor topp na njabootuk sëñ Tuubaa gi bañ jóge fi mu topp ay magam bañ jógee fi mu taxaw toog jataay boo xam ne lim fi liggéey doy na war université bi rek doy na bëgg na ne te loolu ay wax la xam nga sëñ Muntaxa faw nit ki nit ñi di jàngal ay waxam discours bi lu mu gudd gudd wala lu mu gàtt gàtt nañ toj li mu bëgg a wax boo xoolee sax baamtu la ciy dem ngir yéene xam nga ne ko taxawal lu mel nii bëgg na ñeneen ñi ñëwaat bu ñu liggéey liggéeyee xam-xam waaye nag dëkk bi dañ ko war a génn nag ci wàllum wàllum nit kii rek nit ki laa xam rek mu yore dara boo ko joxee ku xamul dara du da du doxal dara wàllum ndox dafa am ñu ko jàng mbir ki ko jàng ko nga koy koy jox mu téye ko man caa génne xam-xam. waaye buñ ko bëggee tegee ci mi liñ tuddee eh, bu njëkk xale yi dañ daa do naan koñ ak koñ rek moom laa xam rek moo fi ne erreur yu bari la indi boo boo xoolee ba ci wàllum maire beeg yooyu sax ci carte dant yi da ci am ay erreur yu bëree bari yooyu loo ko yu koy indi Touba loolu dafay bëri maanaam ay dafa bëri ay erreur te taalibe yi buñ jugee bëgg a wax Pastef da ngeen ak ñàkk Pastef waaye ñii di manifester wu ci wàllum ndox mi muy soxna yi yore paan ak yooyu waaye buñ doonoon mbooloo génn ci mbedd mii di ñaxtu nu nuñ leen war a maanaam leen a war a sànni xel war a dañ leen war a dóori jaasi luñ leen ci war a def loolu bu dee boroom xel mu gudd nga da nga naan tekk diglu leen parce que ñoom daleen leen dañoo dem ba sës waaye bëri na ci njabootu sëriñ bi ñu nekk di dund lu mel noonu mu metti leen te mënuñ ko safara kon nañ sagalaat suñ bopp sagal gi suñ bopp mooy sagal sëñ tubaa ndax sëñ tubaa saa ko soo ko sagalee sagal nga sa bopp te dëkkam bii rek la am te waroon nañ fee jooy lu ne lu dul ñàkkum ndox kon maa ngi lancé na un appel di waxaale ne président Macky Sall miit ngeen di diglu parewut pour taxawal dara la mu nekkoon ba léegi ma nga ma nga ca yéen nag li ngeen nekkoon ba yëg ne mi ngi feebul boo leen ci tegg seenub tànk mukk bu leen ci diglu kenn moom leeral na ay waxam kilifa diine yi wax nañ lañu war a wax liggéey si des nag mooy am réew population ba ñoo koy saafaral seen bopp xeex boobu ngeen doon xeex bu ko kenn bàyyi waaye xeex leen ko ci ngor ak ci discipline ak ci euh, patriotisme lañ koy waxaw ma na ngeen ci xeexee noonu dialogue bi day man li ci ñëpp wax laa ci wax dafa yàgg wax mbiri dialogue moom li waa ji doon genn ki góor gu xor mu doon wax fan yi maa ngi koy seetaan nee na léegi-léegi sax mu gis ay fóotkat ñuy fóoti bu kenn tuuree paan gi te waxtu moom ko waroon pour tuur jotu sax mu ne kaay leen ñu dialogue dialogue dafa ko dul am réew réew xam nga lu koy defar ay constitution si réew mi sart yi ñu të tëral ne lii ku ci jaar fii lañ lay teg lii ku ci jaar lii lay fekk nga xam ne lii mooy sarti réew mi nga respecté ko xam nga lu mu war a def douze ans ci état ku ko def nguuru ci nguur moom dama koy xamal ne nguur gudul yàlla dana jeex mu jéem a xool jéem a jaar grande porte te bañ a gis ñi koy di digal lu koy li koy lu koy yàqal parce que ñi koy diggal lu koy yàqal ñoo koy dugal te bu dee nit a nag te am expérience su politique war naa xam ne gars yi dañ koy dugal parce que yëf yi jeex na lu doon ay at ba ak ñu ne 40 jours ci des war ngaa xam ne jeex na 40 jours yooyu rafetal la ci des ngay gën teg ay ndëggi sarax ak ay jalo kenn jalagu fi li wër Touba gi ci ay turu ASD ñun demuñ fennul di jalo gi maa ngi koy digal sénégalais yëpp maa ngi koy digal bépp politicien koo leen gis mu ne day jalo gi ci système bi la. koo leen gis rek mu ne dafay dialogue gi ci système bi la moom li mu war a bàyyi mooy diito déetoni politique yi mu génne leen ci biti parce que gis nañ ne ay xale yu am quinze ans sax wala six ans lañ jàpp sëñ bi gone gu toll noonu nga koy miinal ay koso gis ko jàmmal ak lu bon loolu loolu sëñ bi mag yi fi ñu yóbbu ci recul démocratie dafa jéggi dayoo dafa ñaaw faw ñu koy wax léegi-léegi damay gis ñu xoromu nag taragal ayi moytul ayi pëlel état bon état lu man ñi man mi ngi koy def ñëpp di loolu bu egsi woon ci man ni damay xam ne <laughs> def na ma ko di ñi ñi mën a rey ñi ngi leen di rey ñii tëj ñi ngi leen di tëj man nañ may jàpp tëj ma wala ñu rey ma donc loolu dong la du dara nag bàyyi leen ragal gi gis nga ragal sunu borom rek lañ ko war a def ragal gu ëpp nag looloo tax ñu ci bëree bëri mënuñoo wax gis nga yàllaa jo bakkan moom suñu borom rek ko moo moo ko moom dee fu mu jotee xalaa kulli xaal na nga dee boo ko doon daw fii ba siin yaakaar na da danga koy raw mën naa am suñ borom fa la ko waajalee bàyyi leen ragal gi xeex gi faaw ñu jéem a xeex lii mu jóge fi waaw loolu nag maa ngi koy digal Sénégalais yëpp hmm. di jéggalu bu baax nag di wax ne lépp luy sagub mun Muntaxa ñun ñu ngi ci ku jàpp ne suñuy wax tourné nañ ko ci kenn wala ñu jëmale ko ci jëy na jëmm maa ngi lay waatal ci sëñ Tuubaa xamoo suñuy wax ñun bu sañu dëkkub sëñ tubaab bi saafaro te bala ñoo xam ne li ñuy xeex njariñul kilifa yi la ak njariñul population bi mooy ñu dem ba ci kanam ndax waxtu wax wax dafa jafe saa soo waxee nag ñenn ci yenn ci bu ay borom yi dara yoo xam ne dañuy xëy di xëy nekk ci këri kilifa yi diine yi defuñ fa lenn lu du sol seeni mbasin di yàq deri gor yi ak di jaxase mbokk yi loolu lañ fay def ñooñu xamuñ dañuy jaxase mbokk gis nga ñun suñ jëmm yi sëñ Moodu mu sëñ Abdul Xaadir dañoo tàggat ci doylu du ñu dem di dunguru kenn du ñu dem di sàkku ci kenn loo xam ne nii maanaam daray adduna dudut lii sëñ tubaa cërale di ko joxe jox nañu ko leneen li si des nag fesi wu ñu dung du ñu dunguru du ñu yàq deru kenn ñu ngi sunu kër li ñu amit doy nañu bu dee wax dëgg it mooy tax ñu jàpp ne dañoo offensé kenn benn personne bu yàlla bind bu taxaw ñuy ñu lay attaqué billaahi ne ko ci man bu ma sañoon njabootu sëñ Tuubaa gépp ci jàmm la ñu ne képp ku yore dara ci dëkk bu ma sañoon ci feex ngay ne ak ndam loolu nag day am ñooñu di def yooyu nag nekk ci këri kilifa yi duma wax këru kilifa kii këri kilifa yi di jaxase solo dañuy xëy sol seenu mbase bàyyi seenu kër dañuy sol seen dañuy xëy sol seeni mbase bàyyi seeni kër dépasse ba ñuy joxe seeni kër ñu xeeb dépasse boobu di añi këri jàmbur ñooñu nag du ñu wax lu rafet du ñu wax lu baax loolu nag lañu ñu war a dakkal gis nga mbir yi faw mu soppeeku kilifa yooyu it bañ a am benn nopp ku ñëw ci ñoom yëkkati kaddu ne diw sàngam diw sàngam diw de nang nangam nga jàpp loolo yow matoo kilifa parce que kilifa bu matee kilifa nit du ñëw rek ne tàñña ay wax ci yow nga jàpp loola man bis bi ma demee ba xam ne sunu borom mii moo ma sakk bu may dee moo may moo may faatu it moo may moo may moo faat sëñ Tuubaa mii doy na ma ci sama borom samay jëf it leer na ma ci yàlla mënumaa matal sama dugg àjjana ca laa xam ne lépp bàyyi naa ko loxol suñu borom waaye dëgg jii muy dëkk suñ tubaab bi mun awma doole ju ma fi mën a defee dara waaye sama kàddu gi am naa ko li feek maa ngi am sama kàddu gi loolu yonent bi waxoon ñett yooyu moom danaa ko jëfal sama kàddu gi nag fu mu mën a egg danaa ko fa eggale wasalaamaaleykum wa rahmatullah